soobee yàlla dina dem kon ku ni mel ku ni mel boo toogee tey ñu ne woon juróom juróomi at la jigee woon réew mi te bi koy jigee kenn poñewu ko kenn tegul fogal ci boppam kenn saxalu ko lem ñu toog ba mu des ñaari weer pour mandat ba jeex ndax moo ko yokkaat dellu si waat def ko juróom ñaari at mun a toog ci semaine bii rek ñu nekk am yoo xam ne wax na ko yoo xam ne lu garaaw a garaaw a garaaw la weesuwul moom ci boppam te jàkkaarloo ak senegal yi ne li ngeen ma dénkoon dama cee lajj ndax ku ñu faloon ci dige boo dig jeunes yi ne leen dinaa def cinq cent mille emplois nga toog ba tey jii ñu ne ñaari weer ci sa mandat nga ne d'accord naa ni créé wu emploi waaye bu ngeen ma falaatee l'emploi sera le moteur de mon action waay waay waay xanaa kay duñu nax ñaari yoon toog ba tey jii nga ne bu ngeen ma joxaatee man daal l'emploi sera le cœur le moteur de mon action waaye yow juróom-ñaari at yi wees lan moo ne sa moteuru action tëjaate kaso jaay alalu réew mi seddoo yaag say mbok loolu rek moo ne woon moteur de son action pendant sept ans